mooy li nga xam ne moom le mouvement doomi daara représenté tous les teraanga gi nga xam ne defal ngeen ñu ko jërë ngeen merci beaucoup Ziguinchor su neexee ànd ngeen ci tagg googu nga xamante ne génnee ci pôle bi li nga xamante ne mooy meetingu pôle bi kon ñu jël kàddu gi. eh sama gaay sama gaay sama gaay ma nee si kaw du xam ngeen mbir mi. département de Mbacké maa ngi leen di nuyu maa ngi yéen ñëpp leen di bu baax. muy moom Modou Tall mi nga xam ne. waxee ndax mu mujaddid la. jox la deux mille cinq cent wala cinq mille nga dem sa yoon. kon. kon ci saas boobu ci li nga xam ne ndax nag la révolution et am marche teg loolu il faut ñu koy fàttali saa su ne ñu koy fàttaliku parce que bu dee dañoo xeex ba egsi fii ay bakkan rot ci lenn rek la ñu mën a def ne sacrifice yooyu yëpp jaroon na ko mooy ba tax nag

ñaata école yoo xam ne tey abri provisoire la un milliard. ñun bu ñu doxee ba échoué loolu rek dafa mel ni échoué lépp mooy fexe ba réew mi ñoom Cheikh Tidiane Dièye ñii ñoom Alioune Sall. kenn ku ne xam ni liñ lii ñu la jox dañ la ko dénk nga war képp nag ci yoon war naa mun a dal sa kaw loolu defuñu ko parce que dañoo bañ masam solos am majorité écrasante assemblée nationale waxantewul nag ak dossiers yi nga xam ne commencé ngeen ko dégg justice di ko def faw rek alal googu nga delloo ko faw rek nga delloo si ko parce que alal googu mu waroon defar tali njàmburam foog loolu mën naa wéy ñu boole kook nag yorin gu sell réew mooy alalu réew mi ñu bañ koo pasar pasare ndax état Sénégal lañ ci yàq ci alal bëri na may wax nii am solo de gis nga yu nga ñëw ci état benn nit mën na yor cinquante oto bii otoom la daan bi suy dem marché benn nit benn nit wala soo duggee ci bureau yi bureau bu nekk am na tele am na machine ay milliards yi yu ñuy yàq la ci année gis nga yooyu réew mu la gën a mën saytu loolu moo la ëpp développement. doo am fonds souverain bi gën a am doole ar suma juumul mooy fonds souverain mooy nga dem ba om om le daa di génne alal mais est-ce que xam ngeen ni Norvège su buggee génn ñëw jël dem euh, euh, agent bu buggee ñëw jël dem mais suñu wàccee ngoon ku yor véloom moom xam na li may wax ku yor véloom dawal vélo ñibbi conseiller ci lépp loo xam ne mooy xeex nger mais saa yu wàccaan aéroport rek sooy dem en tant que agent de l'État da ngay seet moyen de transport bu gën a taxi bi ñooñu foofu lañ toll te ñooñu ëpp doole fuuf réew mu développé la falam yaqturu wa kaana bayna dhalika qawama loolu la diine wax booy dépenser bul nay trop waaye bul xaababal trop na nga nekk ndax dañoo nekk jamono difficulté mun nga xëy ñu ne covid bu dee dencoo woon dara foo jëm mën nga xëy ñu ne guerre am na ci àdduna bi donc yii dafa am solo ñetteel bi ma bëgg wax mooy Pastef lu mu wax rek dina ko def incha allah dañuy wax sénégalais yëpp ku ci bëgg a joxe dossier mu joxe ñu saytu ko comité des droits de l'homme par exemple commencé nañ ci def candidature te noonu lañ koy defee benn benn waaye ñun suñu programme nit ñi il faut ñuy liir programme yi boo demee ci programme Bassirou Diomaye Faye jeex nañu dem liir programme bi mi ngi ci internet bi dañu ne balaa juróomi atti yi di jeex et stratégique loolu nag léeg day laaj sax nga foo nga téye assemblée nationale ba pare doog a yóbbu loi ñu voté ko nga jël décret d'application def seeni ñaawteef nekk ci post yi da ngay toog naan maa ngi xaar ba déet waay déet da ngay commencé faxas te jël nag ci nga xam ngeen yàgg ànd ci dëgg ak ci njub nee nañu transhumant ndax fii dafa amul lu luñ fiy séddoo wala lu tooy ba nit naan maa ngi transhumé loolu jamonoom sonaloon jullit ñi lool yonent bi daan wax may taaha mu déglu déglu déglu dafa jékki-jékki rek yooxu daanu xam foofu ci la tuubee nekk jullit te même Omar boobu mu tuub daa di accepter les règles ne règles yi ma ne woon baaxul jël même Omar bi la du ñaari bokkul gën ñun ñu ñun ñun ñu mu fekk fii moo tax xayrukum loolu la ahadis bu wax xayrukum fil jaahiliya def naa noonu la ko moom it mooy gën su ñëwee fekk si leen ki gënoon ci jaahiliya su dee amoon na ku baax nekkoon fële bu amee bu tuubee ñëw mën na gën man mii kon ñun nag dawuñu ci gannaaw kenn man mii demuma seeti kenn ne ko ñëwal amut demaguma seeti kenn ne ko ñëwal parce que man jàpp naa ni la nga jàppoon commencé ci zéro ba yàlla jox la boo ci wéyee egg quatre-vingt pour cent man loolu laa gëm moo tax demuma seeti kenn ne ko la waaye ku xool ba xool ba ne mbir mi doy na ma te nga remplir charte yi ma wax def na lii ci réew mi ci loo xam ne lu pengle la ci ay rapport ñaareel bi mooy xaabaabaloon woon ca jamono at ñoom ñun ay ennemi lañu ñu ne ñii il faut ñu faagagal leen il faut ñu rey leen ci kàddu gu ñaaw di ñu rey bu dee loolu amut man jàpp ci liggéey bi boo ñëwee ne damay jàpp ci liggéey bi man awma ci problème tekkiwul nit nañ la jël teg la ci kaw ñi fi ne waaye duñ la bodd itam nela doo ñëw loolu dafa daf sama discours la bu yàgg te leer na nañ ñoom nag lii seen problème parce que ki ñëw ne day ñëw jàpp ci liggéey bi bu ñëwul jàpp ci liggéey bi ci Pastef day dellu ci ñoom rek loolu nag mbir mi nit ñi ni ñuy faqee parce que newuñu ci dëgg gis nga ànd ci dëgg bu ngeen demee ba ñàkk sax kenn ku ne day am ngorom ne man ñoo àndoon ba mbir mi jeex damay des moo tax ñun tëjuñu suñu bunt waaye du lu ñu soxla ñun pour am egg fi ñu bëgg a yegg loolu tam leer na léegi nag bu ñu weesoo loolu ñetteelu poñ bi balaa may dugg ci programme maa ngi ko doon fàtte mooy ñoom ni ñuy politiquer tey dafa am ñu ma woo ne ma wéy ñoom dañuy dem seeti yenn communauté yi ne leen Sonko yoon rek la bañ daan nañ ko def fii ci Touba Mbacké fu ne ñu dugg fa ne waa ji bés bu jëlee réew mi màggal dootu fi am defe naa màggalu ren li état du senegal def bi màggal di am ba léegi état mosu koo def mosul am te noon la amee ci gàmmu gi noonu la amee ci Popenguine ñoo war a bañ ñu leen di nax wala ñu leen di utiliser ci yenn yi nun nag duñu politiciens yoo xam ne bëgg ay carte dina tax ñu dem di wax nit ñi lu dul yoon man ci xale bu jigéen bu musóoru fii ci réew mi mooy sénégalais bu ne li nga xam ne sa dafa am lu ñuy wax droit à l'éducation xale bu bëgg a jàngi boo takkee sa croix boo duggee ci école ak bu mu munti doon yi nga xam ne ñu ngi ci programme laïque bi parce que dañuy wax franco arabe arabe dafa am français am arabe mais ci école laïque bi la bokk dañuy wax privé catholique ci école laïque bi la bokk mathématique lañ fay jàngale ak français ak anglais ak waaye jàngalewuñu fa diine ku bëgg a jàng diine dangay dem ci daara ji wala nga dem ci catéchisme bi ñooñu mun nañ ne ñooñu école privée totale la ñu fay jàngale le culte looloo tax école privée yooyu yëpp ngeen dégg état bi da leen di jox subvention at bu ne milliard sept cent jox ko école yooyu muy privé catholique muy privé laïque parce que mission de service public ñu naan xale ñëw na ci école moo xam ku dem ci franco arabe takk croix am dafa bu wàcc jotee mu ñibbi ku def kolam école boo dugg ci Sénégal da nga war a loolu nag du lu ñuy négocier defuñu ko contre une communauté defuñu ko mais mieux encore école yooyu ñu ñoo ko moom Notre Dame du Liban ak xawma lan du ñu nangu xale Sénégal di sénégalaise sénégalaise ne man bopp neen lay doxee droit am la tax taxul keneen gën ko waaye ki ne man damay musóoru bu demee ci école boobu ñu ne ko doo fi jànge na ñëw nañu école France bi nee nañ duma fi dugg duma ñu xool ndax du fa dugg parce que yab nag seen réew duñ yab seen réew dellu si ñëw yab ñu suñu réew loolu duñ ko nangu kon mbokk yi politique mooy nga jege sa réew jege sa askan nekkal ko fa tey ñi ngi ci pôle bi nga xam ne mooy pôle mu boole région de Diourbel ak région de Louga pôle yu gën a tardé wala yu gën a ndóol d'accord ma ak sëñ Cheikh nag ndax dafa warul Sénégal ni ma ko wëree waaye su demoon Medina Yoro Fula wala mu dem Saraya wala mu dem Salemata wala yeneen ak yeneen dina xam ni département bi du ci département yu gën a ndóol waaye département la boo xam ne des na gannaaw li fi waroon am amu fi ak ni fi waroon amee ameewu ko noonu ba tax déedéet <laughs> maag sëñ Cheikh la lool moom maag moom <laughs> loolu maag sama sëriñ la <coughs> taaliba bi gàgganti sëriñam laa rek dama xaw a tëradi waaye boo nattee xam nga waa équipe waa groupe tàng xol il faut ñuy màcc pass yi ndax seen xol yi di sedd tuuti donc pôle bi pôle bi jamono ji tembe boo jëlee ñaari région yi li statistique yi joxe mooy trois millions deux cent mille habitants ñoo fi nekk waaye comme dañoo def document boo xam ne dañu ne gouverner c'est prévoir ñu def projection ci vingt cinq ans moo tax ñu ne deux mille cinquante pôle bi lan lay méngool deux mille cinquante pôle bi dina doon sept millions deux cent mille habitants mooy doon pôle daanaka bu gën a peuplé ci Sénégal ndax pôle pôle centre rek moo koy ëpp waaye pôle sant bu leen fàtte ni ñetti région la te pôle bi ñaari région la donc boo ko nattee ci loolu mun naa ne mooy pôle bi ëpp habitant ci Sénégal mooy pôle bi ñu ne léegi boo ko gam-gamlee ak pôle Dakar pôle Dakar bi nga xam ne tey 4 millions d'habitants la moom en 2050 6 millions d'habitants lay doon kon progression bi am fii en terme de démographie amul foofu ñaareel bi ñu ne tey richesse bi nekk ci pôle bi mooy alal gi meññ fii ci pôle bi buñ ko séddale waa pôle bi ñaata la ñu ne buñ ko séddale woon kenn ku nekk cent mille ngay am ñun ñu ne fii ak 2050 bëgg nañ ko multiplier par deux et demi ba nga xam ne dina doon minimum un million par habitant ci pôle bi ñu ne nag liggéey xaw naa néew ci pôle bi ndax taux d'emploi bi liggéey bi 18 pour cent la boo jëlee téeméer yu ne fukk ak wala fukk ak juróom-ñett ñoo ci yëngatu ñoo ci am liggéey loolu néew na lool te du ngeen ma weddi ndax soo waxee dañ la naan fii Jakarta waaye koom-koom gi xaw naa xaw naa néew ak sareet yi bokk bon kon pôle bi ci jamono jooju boo nattee ci wàllu électrification mooy lamp yi ak leeral gi li am ci pôle bi néew na lool parce que 79 pour cent ñoo am courant bokk ko natt bi rëy na noonu ci ndox mi laat Sonacos mais fexe ba yu sonakos yu bëri à taille moyenne am fii ba lépp lu ñu fi bay ci gerte ñu nal ko fii def ko diwlin lañ ci soxla ñu utiliser ko la ca des ñu génne ko réew mi loolu bokk na ci politique industrielle bi ñu bëgg a def fii dañu ne fii dañu bëgg mu doon pôle industriel premier projet bi nga xam ne moom la ñu lancé ci industrie Sénégal dinañu ñëw fii mois de décembre poser la première pierre mooy li ñu war a monter fii ci ay oto muy camion yi mais muy aussi matériel de défense muy matériel militaire fii lañ ko tànn fii ci département Mbacké ne fii lañ koy teg te mu war a jur minimum cinquante mille emplois kon président Diomaye su leen ne Mbacké yitteem la ngeen war koo gëm léegi docteur Cheikh Tidiane Dieye wax na ci ndox mi mais loolu yàgg nañ ko joytu fii fii ci mandat bi balaa 2029 dinañu andi ndox bu baax ndox bu ñuy naan partout au Sénégal mu ñëw fii ba Touba Mbacké Diourbel Mbacké et cetera ba ñëpp am ndox bu baax yéen xam ngeen ni problème mu Touba non seulement ndox mi ñu naan baaxul mais réseau bi 40 pour cent du réseau dafa nëb ba nga xam ne ndox mi ciy jaar li ciy li ciy tuuru moo ëpp li ciy egg ci nit ñi loolu yépp nag programme bi docteur Cheikh Tidiane jël xaalis bu bëri la ndax su ma juumul gën saa gàtt jëlee ndox mi Lac de Guiers andi ko wopp yi dépassé na 600 milliards 600 milliards yoo xam ne ci lañ koy def dégg ngeen nag ay nit naan ci ban condition la docteur Cheikh Tidiane joxe entreprise bi gagné et cetera xam nga loolu ay waxu. loolu yéen ñi dëkk fii am problème ndox te nee naa suñu nguur ñun lu ñuy def rek ci transparence lay doon mais est-ce que d'accord ngeen ñu toog ay ay weeri weer lii ñu def nii études yi rek waroon na jël deux ans études yi ci six mois sept mois ñu def ko ba signer contrat bi est-ce que di ngeen d'accord ay nit naan leen transparence ak léegi li ñu toogaat ay deux ans trois ans quatre ans mu leer ni d'ici deux mille trente cinq ndox du ñëw fii ñeneen ñi mooy ñi nga xam ne ñi ngi wër di essayer yàq xelu nit ñi ay lobbyeur lañu lobby kenn ku ne ci ñoom demoon na ut ay partenaire am nee na ñëw bëgguñu koo imposer bëgg ci am ay commission yoo xam ne ay milliards yu dugg ci poosam la loolu jeex na ci senegal ñu ngi gërëm sëñ Muntaxa parce que bañ fa yebalee ndaw ñi man mii dem naa gis ko waxtaan ak moom wax ko li ñu fas yéene def lim ñu wax mooy moom ci boppam ab géntam bu mu géntoon moom la ñu fas yéene réaliser nii daat ciy def ay ñaan te dina yegg bu soobee yàlla assainissement bi duma ci dellu si Cheikh Tidiane Dièye wax na ko <coughs> waaye wax nañ leen aussi lu jëm ci tourisme religieux tourisme religieux fii ci Touba am na benn étude boo xam ne Moubarak Lo def na ko li mu wane mooy màggalu 2023 lu mat 6 million de personnes daje nañ fi waa 6 millions de personnes yooyu dañuy bàyyi rek ñu ñëw def seen màggal dellu wala mun nañu fexe ba màggal gi ànd ak koom-koom ànd na sax ak koom-koom ba noppi waaye nañu fàttaliku même yàlla ci alquran bi muy wax aji màkka dafa ne dem leen ngeen def faratay bu ngeen paree na ngeen def seen commerce ay euh, jaamu yàlla mën na ànd ak koom-koom gu bëri waaye fii Touba ñaata su 6 million de personnes dajee fii ñaata gàtt lañu fi rendi der googu xam ngeen ni day yàqu der giñ fiy def yépp après dañ koy sànni ji moo tax filière peau bi ñu wax nga xam ne der gi ak meew gi ak lépp lu jëm ci jur gi ñu fas yéene ko def fële ci daara jolof ba nga xam ne suñu cordonnier yii soo demee ngaay tey romb naa fa cordonniers yi dañu wax ni ñoom pour ñu am der gi dañuy sonn léeg buñ ko amee dañ ko yónni ba itali wala Espagne ñu traité ko mu doog a ñëw loolu léegi mu jeex Sénégal ndax agropole bi ñu bëgg def foofu lépp luy der dinañ ko traité fii mu ne dellu ci cordonniers yi ci njëg bu yomba yomba yomb ba nga xam ne dàll yi ñu ciy defar ceinture yi ñu ciy defar sag yi ñu ciy defar dina mun a concurrencer lay jóge Chine wala lay jóge France wala lay jóge Allemagne ak ak feneen pare gi ci pôle bi su ma waxee tourisme religieux mooy am na lu ñu jot def Touba waaye ñun bëgg nañu def di fois plus ndax war nañoo am fii ay hôtel yu moderne bi ma demee Kolda dama fa waxtaan ci lu jëm ci euh, Madina Gounass parce que foyer religieux yi bëri na ci Sénégal te bu nekk am am na xew yu mu moom yoo xam ne ay nit dina ñëw mais ñu jàpp ni ñay jóge chaque jour ndakaaru ne maa ngi dem ziare ji sama sëriñ Touba kenn xamul nu mu toll ku fi ñëw weekend kër diine kër euh, kër kilifa goo dem di nga gis ay daayira yu ñëw seet si leen waaye léeg-léeg dañuy obligé gaawantu dellu parce que dañuy am problème fu ñu dal boo demee tey Makka wala Madina hôtel yi gën a bakkane ci àdduna foog nga koy fekk noonu la amee ca Rome loolu lañ ne bëgg nañu am fii <coughs> ngeen jéggal ba nag mais tey tey dafa mel ni sëqët si dafa gën a rakkaaju xam naa ni waa boor bële comme ñoom xar nga fuufa la ñu gëm xam naa ni ñoo yëngal butéel yi <laughs> waaye mënuñu dara ci ñun kon tourisme religieux boobu lañ ci wax mooy du état mooy ñëw di tabax état mun na defar kër sañ Touba ba mu baax waaye état day day encourager waa secteur privé ñoom seen bopp ñu créer leen cadre yi leen war a créer gannaaw borom dëkk bi bu joxee ndigalam ñu ñëw investir fi tabax fi ay bërëb yoo xam ne ku ñëw mën nga ne maa ngi dal foofu bu julli jotee ma dem julli ji ca bërëb bu tedd ba su ma bëggee ziyaare ji ma dem ziyaare ji ñëw toog mu am ay restaurant yu moderne yoo xam ne soxla woo dem taxaw ci kër waaye mën nga dem foofu dem dem jëfandikoo loolu du créer koom-koom ci ci dëkk bi du créer emploi suqali transport bi loolu la ñuy wax tourisme religieux ñoom ñiy wër naan gars yi nee nañ dañuy def ay bërëb yoo xam ne caaxaankat yi fa la ñuy ñëw kenn mësu wax loolu bu doon loolu Makka du am turi hôtel Medina du ko am <coughs> kon tourisme religieux bi bokk na ci programme yi gën a am solo waaye mbokk yi pôle bi ñu nekk am na phosphate phosphate baa ngi fii Baba Garage phosphate baa ngi fii <coughs> phosphate baa ngi fii ci Darou Moussi phosphate baa ngi fii ci dëkk bi waaye bu leen fàtte ni pôle bi dafa dem ba Louga dem ba Lumpul ku wax foofu wax zircon bi nga xam ne ay nit a ci am ay milliards yu dul jeex te Sénégal gu si boppam moo tax ñu ne nag pôle industriel bi nga xam ne phosphate bi ñu fi am du génn réew mi de loolu jeex na ci réew mi lañ doon génn phosphate bi di ko génnee jën gi ak yeneen ak yeneen loolu jeex na ci réew mi la ñuy produire transformé fii ci dëkk bi def ko acide phosphorique def ko engrais parce que ku wax mbay wax engrais lañ ci soxla ñu jël ko la ca des nag ñu doog koo jaay parce que sooy jaay phosphate brut bi bu dee 1000 nga ci am boo ko jaayee noonu boo ko transformé fi def ko engrais 5000 nga ciy am loolu la ñuy wax valeur ajoutée cuune yi fi nekkoon xaw nañoo rey Sénégal kenn xamul lii lu mu doon Maroc de phosphate moo ko développé Maroc ñun ñu am phosphate ni ñoom waaye teg ci pétrole teg ci gaz ak yeneen ak yeneen te ñoom amuñu loolu mbokk yi Sénégal mun nañ ko développé ci lu gaaw waaye lenn rek la raaj mooy askan wi takk seen ndigg topp ci gannaaw président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement am parce que ñi yàq réew mi ba fii ñooy waraat bëgg a nërmel xelu nit ñi naan leen def nañu six mois ana résultat bi six mois bi résultat am na fii inondation yu am ren niñ ko gérer rek defe naa preuve la ci te programme assainissement bi ñu am docteur Cheikh Tidiane wax na ci fii ci Touba Mbacké la ca njëkk mooy lépp lu wër jumaa ji di si quelque temps du ngeen gis ndox bu fa taxawaat bu soobee yàlla ñu doog ci teg yeneen yi bassin bi ñu fi bëgg a def bassin sur 60 hectares nga xam ne ndox mi yëpp dañ koy yóbbu foofu bu nawet bi jeexee ñu mën koo jëfandikoo di def maraîchage au ñuy dem jéggaani soble beeg euh, carottes yeeg ñoom seen feneen mun nañ ko def fii aux alentours loolu mu ngi ci programme bi Cheikh Tidiane jee wax li daf cee duggul ci détails yi waa ñoom pendant 60 ans fan la ñu nekkoon lan moo tey ñu def lii ñuy wax nii kon pôle industriel bi ñu wax fii pôle agropole bi ñu wax fii ci càmm gi ci fii nag mën nañ fi def sax culture waaye nag amu leen géej ba mën a napp waaye càmm gi mbay mi phosphate bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne buñ ko dajalee fii mën gëm naa ni ci diir bu gàtt gëm naa ni ci diir bu gàtt nañ ko bëggee def feneen ak feneen ci Sénégal parce que développement day maase ku leen loo ni réew gox gi mun na développé geneen gox gi sous-développé da leen nax boo demoon tey États-Unis boo demee Détroit wala nga dem Philadelphie wala nga dem New York foo dem rek ne fii moo gën a développé boo demee France noonu waaye boo ñëwee fii foo dem ne fii moo gën a sous-développé développement day maase moo tax pôles yi ñu def ko huit pole yoo xam ne benn bu nekk lañ fa bëgg a def buñ ko defee ña nekk foofu mooy ne Casamance ñene Matam ñene Ndar ñene fii ñene Ndakaaru ñoom ñëpp dañuy bokk jógandoo bu ko defee kenn ku ne am sañ-sañu toog fi nga dëkk bañ a dem ñun ñëpp ñu dem tàncaloo fële Dakar ci ay location yoo xam ne chambre salon nga fay am lii mooy gis-gis ci développement est-ce que pare ngeen pour gunge ñu ci liggéey bi pare ngeen pour liggéey ci lii nag buñ ko defee day ànd ak ay infrastructure moo tax corridor bi nga xam ne autoroute bi war a jóge maatam ñëw ba taqale ak autoroute Ila Touba bi waaye mun a am ay ramification rans dooli ak feneen ak feneen mi nga xam ne mooy secteur de production yi bokk na ci li nga xam ne mooy lënkale pôle nord bi pôle nord st bi ak pole bii train bi doog ñëw nag ndax fii ku fi wax wax train nag waaye saboté nañ ko ba lu yàlla xam doy na kon infrastructure éducation yi doog ci tegu ndax fii de tabax nañ fi université te waa dëkk bee ko tabax laaju ñu kenn dërëmam loolu ñu tabax noonu wóor na ma bu doon état bee ko tabax bu ñu la nee quinze mille bu ñu la bu ñu la nee fii quinze milliards lañ ci def bu doon état moo ko tabaxal boppam ñu ne la 150 milliards lañ ca def moo tax royukaay lañu ci dañuy liggéeyee fii nañ ko defee ci ji naan nañ ko defee ci jumaa Tiwaawan niñ ko defee feneen ak feneen la ñu war roy ci diine dafa bëri te suñu mbokk catholique yi noonu lañ koy defee di tabax seen i mbir di def seeni i di defar ay école defar ay teen di def leneen ak leneen loolu nag mooy li président Bassirou waxoon ci jub ak jubal ak jubbanti jamono jooju lañu toll soxla nañ leen waxuñu leen ngeen ne suñu gannaaw dañoo bëgg ñu nekk ak même alignement beeg yéen ñuy puusandoo peuple bu musa soppi rek dafa fekk mu am une génération de leaders politique boo xam ne bëgg nañu réew mi jub nañu am nañu xam-xam waaye ñu ànd si ak une une population boo xam ne am nañu farlu te réew mi jaral na leen élection bi ñuy dem nag ci yooyu la bokk man awma sikki sàkk ci résultat bi fii awma sikki sàkk ni bu soobee yàlla juróomi député yi fi nekk ak li nga xam ne moo ci liste national bi ñoom Cheikh Bara Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen awma sikki sàkk ni dina jàll waaye yéen rek mun ngeen joxaat yeneen ñeenti député wala juróomi député ci liste national bi li koy andi mooy bu njëkk bi mooy ngeen génn massivement massivement bu njëkk bi bu njëkk bi dañoo gis ni taux de participation yi ci élection législative yi dafay faral di gën a néew taux de participation élection présidentielle dama bëgg bu dee 65 pour cent ñoo génnoon pour voter ji cette fois-ci fexe leen ba nu mu tuuti tuuti 80 pour cent génn voter ji 80 pour cent ci list bi. génn voté waaye ci quatre pour cent yooyu soo leen jëlee ñoom yéen waa Mbacké ñaata ngeen ñuy jox ñaata ngeen di jox suñu jàmbaar ji di sëñ Cheikh Thioro Mbacké loolu mooy défi bi bu ngeen ko defee ba ñu am majorité bu mat sëkk assemblée di ngeen xam lan la assemblée nationale di jëriñ di xam BIPA lan la assemblée nationale di jëriñ parce que même président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement bi ma jiite même ñoom assemblée nationale da leen saytu parce que loolu mooy réeram waxuma laa nag koo xam ne dénkoon nañ la nga salfaañe jalgati alalu réew mi kon lii mooy challenge bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant suñu xel sedd na ci yéen trop asalaamualeykum wa rahmatulah wa barakaatu.